xaaj bu njëkk bi ci ñetti xaaj yi ñi jëkk gëm te duñu yawut tey dinañu waxtaan ci mbirum ñi jëkk gëm te duñu yawut amoon na nit ku ñuy wax korney korney du woon yawut te mu ngi dëkkoon sesare njiitu xarekati waa rom la woon jiite woon na téeméeri xarekat moom ak waa këram gëmoon nañu yàlla Corneille daan na sarax miskin yi te daan na màggal yàlla bés bu nekk xaraful woon ngir mën a bokk ci diine yawut bare woon na ñu dul yawut ñu meloon niki Corneille gëmoon nañu téere koleer gu jëkk gi waaye bokk ñu woon ci diine yawut yàlla digoon na Ibrahima ne xeet yépp dinañ barkeel ci turam jamono jooju nag agsi woon na genn ngoon am lu feeñu Corneille ci biir peeñu mi mu gis am malaaka malaaka mi wax ko mu yebal ay nit ci dëkku yoppe ngir ñu indil ko simoŋ Pierre noonu Corneille yónni ñaari dagam ak benn xarekat ci dëkku yoppe léegi ma laaj leen benn lu tax ndaw yi ak yeneen taalibe yi demuñu yëgal xabaar bu baax bi ñu dul yawut ndaxte ay yawut lañu woon te daawuñu jaxasoo ak ñi dul yawut te xarafuñu xamuñu woon ne soxlaatul nit di xaraf ngir yàlla nangu ko ñaar naka la Corneille wute woon ak ñi ëpp ci ñi dul yawut ñi ci ñi dul ay xërëm lañu doon jaamu Corneille moom gëmoon na yàlla te toppoon na tere kolere gu jëkk gi